هو الحي القيوم صبر الله العظم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الصبر الله العظم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والقدم لما سبق نازل بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناصرات بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلي حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد البتي لما أغلق والقدم لما سبق الناس بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على سبحان ربك رب العزة عما يصفون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 سالم دائما عبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم أقلام حركت من غير منعجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير العلم كلهم تهدي من شدة الحب لم دائما عبدا على حبيبك الخير في الخلق كلهم مولاي بوك جولي دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي سنتي الله برم سبحانه وتعالى مؤمن ورسجل مؤمن ورسجل سيدنا محمد مو بند جمي محمد بند personality جل بابو بند كو def ci barke xol ba yërmandee ca nekk res wa cofeel moo ci nekk làmmiñ wa foo ko fekk mi ngi zikkar ñaari tuñ yi foo ko fekk mi ngi sabal yàlla li nga xamee ne mooy ay tiflitam moo dàqle mu aljana nee ñaari loxo yit mi ngi ko bind ci tabe bi ko yàlla bindee noonu ba pare nag mu daal di koy wàccee yónni ko ci xeet wi ne yéen xeet wi lii mooy sama hadiya leen hadiyal jëme ci yéen kon dëgg-dëgg na ngeen xam daraja yi sama hadiya ji te ngeen màggal ko kooku mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam سيدنا محمد نك تروم دغ دغ نيول جمم دغ دغ نيول دا بو خوله باتو محمد ميم هادم ديلو ميم ديل نو كومبوزي لا ليمي فير موي محا مدلنا الاسلام والكفر محا ميم حدم ديال بو جيك مي موي maxaalanal kufr miim del gi ci des mooy maddalanal islaam ñu ne lu tax nag jëkkuñoo wax maddalanal islaam doora ne maxaalanal kufra ñu ne ah kay darbul mafsada muxaddamun ala jalbil maslaha dañ wax ne bala ngaa xëcc njëriñ da ngay dàq lor ba pare moo tax yonent bi alayhi salaam lor la ñu jëkk a jañal ba mu dem mu door a xëcc lislaam moo tax ñu ne ma dallana al islaama wal maa ñu ne nag miim xadam dellu gu jëkk gi dañu wax ne miimul awal madaxalul waasiliina miimul awal madaxalul waasiliina walhaahu muntahaahum waddaalu madaxalu gayri lwaasiliin ñoom laa yantahuun yonent bi alayhi salaam yàlla dafa bind miim xadam dellu miim deel miim gi taxawaayu taxawaayu gémmiñ ak bopp xaadam dellu taxawaayu taxawaayu mbagg beneen miim bi taxaw taxawaayu ndigg deel gi di ñaari tànk yi ñu ne ñi yàlla may nag pour ñu egg nag ci moom ñu ngi jaaree ci bopp bi xam nga ne lu jaar ci gémmiñ dana egsi ci mbàq waaye tànk kenn mun caa jaar ba egsi ci mbàq moo tax ñu ne nag ñiy egg ci yàlla ci miim xaadam dell gu jëkk gi lañuy jaar bu ñu egg miim gi jëkk gi bu ñu eggee ci xaa gi mooy seen terminus ñu ne nag sayduna muhammad moo tax yàlla ne ko yow yaay jaarukaay bi moo tax mu ne ana min allahi wal muminuuna min nii man maay pour yàlla mais yéen jaam yi ci des yëpp pour man ngeen waaw wa man ataa rasul faqad ataa allah maanaam ku topp muhammad topp nga yàlla borom bi subhanahu wa taala moo tax nag busri ne ko خفضت كل مقام بالإضافة إذا نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي mufradu la alam am na ñu ko xam ci wàllu grammaire la ak nakiratul maxsuud bu fekkee ne laafe wu ñu dañ leen di rafa noonu mufradu la alam yëkkati ko nee na yonent bi alayhi salaam noonu nga yëkkati ko ci kaw saxaaba yëpp moo tax nag mag ñi tagg ko la ñu jëloon def ko mu gën a foor ci jaamu yàlla yi tagg sayduna muhammad moo tax fasasi yu ne ko madixu nabiyillahi azka taabudi lima xaaza min fadlin wa faxrin wa sudadi ama achara man yudlil lahu bitawaddudi taalaw فعندي لنبي محمد مديه كأزهار القماء للطلة نينا تجي سيدنا محمد موي جنجا سلي جامو يالا نينا كولون لتح من لما هذا من فضل لملق اي نجنيل وفخر اكوكري وسؤدد اكوك تشانغ كونك اما عشره ajooju yaayu nidaawu la taxawe ama achara e yeen mbooloo من يدلي كي واتو بتوددو شفهل شي يونتي عليه السلام تعالوا كايلين فعندي نكنا في من لنبي نيل يونتي محمد مديهون تقوى حمني كأزهار القمائل دفا من لتور تورو غازون طلتي با خمين الله بي دفا واتشي شكاهم أروزكو نختار كون كوكو موي سيدنا محمد yàlla nag moo ne annabiyu awlaa bil muminina min anfusihim waaw wa ummahaatu ah wa azwaajuhu ummahaatu ca sooratu talaaq yàlla nee na yonent bi moo gën a yey bépp jullit ci boppam maanaam kenn ku ne yonent bi moo la war a gënal sa bopp motax sayyidina umar masna jakarlo yenente bi munaka la anta ahabbu ilayya min mali wa waladi siwa nafsi de ngeli ko de mu deug ko na kudul man yow Muhammad ya ma la gënal da cee di da cee dindi boppam Seydina Omar dafa ne yonent bi yaa ma gënal doom yaa ma gënal alal sama bopp daal laa xam ne kenn gënaluma ko mu ne ko nag sa ngëm yàlla laa yakmalu imaanuka xataa akuna ahabu ilayka min nafsika allati bayna janbayka mu ne ko sa ngëm yàlla du mukk fek gënaluma sa bakkan bi nga xamee ne mi ngi nekk sa diggante ñaari mbagg yi mu ne ko izan anta ahabu ilayya min nafsi wa waladi wa mali mu ne ko kon nag yow muhammad yaa ma gënal sama bakkan yaa ma gënal samay doom yaa ma gënal sama alal mu ne ko izan xat kamula imaanuka mu ne ko kon nag léegi sa yàlla mat na

عليكم صلى الله عليه وسلم سيد الحاج مالك نانا على سمو ليل الولادة خصبة إذا على سبيله الذي فالله يعطي لنا المنى فلولا وفق لا يكون فقير على bu ko defee nag kon jàng na fi benn buntu nun bés bu ne incha allahu dañuy firi buntu yi waaye loolu programme bi xaju fi waaye daal ñu xam ne daal ñoo ngay jëm Tiwaawan ñele ñoo ngay jëm fu waay mën a dem ñi ngay dem Kawlax ñi ngay dem Fuuta àdduna bi yépp nag dañuy màggal juddu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax xaaji malik bayit bi ma waxoon léegi wa mawliduhu màggal juddoom bihi sharafun tedd ngaa ngi ci wa xeyrun nee fajug aajoo ngi ci wa xeyrun ak yiw waaw foofii taadim yi nekk na ci màggal ga injaawu sujooni nee na wuññu ko njàqare kon nag te tagg yonent bi alayhi salaam ci guddeem yii guddi goo ko mas a def parce que boo gisee Seex Alxaaji Malik bu ñu gisee weer wi rek ñu commencé burdu bi ñu ngi commencé màggal juddu yonent bi lu tax ñii dañu ne guddi gu jëkk gi la ñii ne guddi ñaareel gi la ñii ne fukki fan yi ak ñaar la li laylatin qiila aw laylayni qad xalata wa qiila fi xubbihi fafhas wala tanami kon nag lii tax bu commencé rek ñu commencé guddi gu nañu jël benn buur ndax bunt bu ne nag ak li muy wax moom buur waaw ndax dafa commencé xasal nodd nañu ba mu defee xasal mu wëlbatiku nag di yedd bakkanam di wattandikuloo nit ñi seytaane ak i pexeem waaye dem nag ba mu yàgg nag mu réccu ndax moom dafa jëkkoon nekk fonctionnaire ci gouvernement Égypte daan dajale li nga xamee ne mooy lañ daan yóbbu baytil maal yàlla def nag mu gis na daal fonctionnaire yi daal gis na ci ñoom ay jikko yoo xam ne méngoowul ak diineem mu bàyyi ko daa dem Alexandre al Iskandariya fekk fa ku ñuy wax Abul Abbas Marsi kooku moo ko dalal doon nit nitu yàlla mu nek fu mom mom bu sori gana bam jange xam xam-xam aduna yeb mu nek fa nak di jàng nak xam-xamu batin di roy ci abul abbas marshi ba xëy rek nek nitu yàlla lolo tax mu man li mu am ndax nitu yàlla yi yàlla daf len di may xam-xam da len di defal fatu waaw mom la abu yazid al bastami waxone waxoon ne axadtum ilmakum عن العلماء الرسوم ميتا عن an waa axasna ilmana an il xay alladi laa yamuut nee na yéen seen xam-xam yéen a ko jële jële ci borom xam jàngalekat yi nga xam ne ñooy jàngale téere yi ku dee sa morom donn waaye nun suñu xam-xam ñoo ngi ko donne ci kii kii dund ca du dee muy yàlla ndax yàlla moo ne wattaqullah wa yuallimukumullah ragal leen ma ma xamal leen xam-xam bu ngeen xamul woon waaw bu ko defee ne kon loolu la ñu xam ne nag yonent bi alayhi salaam loolu la fi nekkoon ba jóge fi suñu mag ñu baax ñi jël ko di ko doxal waaye nag bu ñu texte yi nax ba mu ëpp ndax boo demee ci jawahirul maani Cheikh Ahmad Tijaan nee na alwaliyu laa yaati bi charin jadid innama yati bil falmi jadid bil kitaabi wa sunna waaw allazi laa yuaraf أحد قبله ولذلك يستغرب كل الاستغراب من لا إيمان له من الطريقة نانا ولي يدو اندي شريعة بو بيس وايدين اندي ديجين بو بيس الشريعة كون بوغين غيسي نيتو يالا دي جيفانديكو جيفانديكو بو خامي خامولين كو تاي لين تي ndax du indi sharia bu bes mais meun na indi deggin bu bes ci bi sharia neena bu lolou nak da koy xamal mom nit yalla bobu lo xamne xamaluko bu ko defee nag loolu nee na ñi bokk ci tarixa bi dañuy tumurankeel mbir ma dañ naan ah lii day diw defu ko woon lu tax mu di ko def loolu Cheikh Tidiane Chérif ko wax ci moo tax nag yëf yi mata teey bu baax a baax a baax kon nag loolu la ñodd nañu timis ñu dagg ko foofu rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu